salaamaaleykum wa la sëñ Abdou Khadir yàlla dogal na liggéey bi nekk waxoon jël benn rek ci commission d'organisation ginnaaw bi ñëw ci entretien bi toll ci biir màggal gi tàmbale ko ñetti fan ci ginnaaw tey di cat safar incha allah wala ba ñu xaar ëllëg di ci safar di bis bi nga xam ne moo leen doon séentu ñun ñëpp di ñaan si borom dafa ñu toog feex bi fekk ko ci jàmm. dina ci ngërëmu sëriñ bi ku jël message bu xamul xidma nag ay taxaw ci bokkoon sàmm war may barab bi liggéey bi nag ni ñu ko xamee woon ñu baax ko def rek bi ñu ko doon xayma jàpp nañ ne am nañ soixante nanga pour cent jëm kaw te àggul ci bis bi ndax liñ doon sensibiliser ci nit ñi boobu léegi ci bëri gis nañu bàyyi nañ ko xel pourtant ci bitti ba du gis nañ gaay bi ñu ko daan gisee àgg sax ne waxoon nañ di may nañ képp koo xam ne rek ambila di jaay waaye fa loo sax mel na tax ko bari lool loolu lépp nag farlu ña fa nekk la ak déggu tam niñ ci li wax dafa mel ne jaaykat ne noonu ñu ko defee ñu doon ko sàkkoo itam ci ñi nga xam tam ñooy suñu bokk yi nga xam lay yëngu ci wàllum média ndax gis nañu ne réseaux yi moom xaw nañu solo tuuti loolu nag li jox tiktokeur yi ay chroniqueur xaw ma ay badi bi nañ ko mën di waxee daal ndax téléphone nit da ciy jël nga di ko ba noppi ji lu gaaw te doo ci bàyyi xel ndax di sàcc rek def ko te bu noppee monte ci la ko soob loo xam ne indi ay jëf joo xam ne mu barab bi kon daal ñu ngi bàyyi la wax xel ñi nga xam ne ñooy yëngu ci wàllu googu ñu ngi ci bàyyi xel ci sàmm ci sàmm lañu loolu ndax ñoom ñëpp xam ne sëñ bi doon na ko wattandikuloo ndax ñëw ba jumaa te loolu leen lu may photo boo ko seneb ak yu ni loolu jàpp nañ ne am na wala yoon daal bu bokkut ak ndoxin euh, woowu yi rawatina ak ñi nga xam dañ koy faral ak ak jigéen kon nag ñu ngi soññi ñëpp rek képp koo xam ni yaa ngi yëngu ci wàllu nga bàyyi ci xel baax baax ndax ñun li ñu gënaloon mooy liggéey liggéey bi jàmm laabir nañ kenn bañ am benn jafe-jafe ndax loolu mooy ñu noppal moo noppal itam ñi fi ñëw li ñu waxoon tam fi ñëw nañ xam ne ñun ñoom ñoo ñu fi bàyyi ngir laabir leen teg lañ ci yoon képp moo ni fi bàyyi kon nag bëgguñ benn xëccoo di am suñu liggéey ak ñi nga xam ne ñoo ngi siyaar si kon na ñoo ngi soññee waar rek ci liggéey bi di des rek ñi nga xam ñu ngi dégg ñu bàyyi xel ci sàmm wala mbërëb buy ñëw bu dee góor na sol yére yu jot bu dee jigéen na sol moom itam yére yu yiw yu fatt yoo xam ne den dëppoo ak lislaam ndax loolu rek mooy yoonu murit kon sëñ Abdou xam naa kon daal liggéey foofu la tool bi ko la ma daal jàpp leen ne moom soixante jëm soixante jëm quatre-vingt pour cent moom amagu ne ko ci commission d'organisation moom ñu ngi ñaan si borom mot li ñu ko ci jàmm nag parce que bi ma ngi occasion sax ñu santaale police nationale seen itte ak seen farlu ndax mel na liggéey bi ñoom dañ cee jàpp bu baax a baax ndax mel na ni boo xoolee li nga wax ñun dañ daan monte di dut ay groupe yëpp waaye duñ daan nañ maye yu bari waaye ñun sax gis nañ sax ñun fi ñemoon sax ci terem njaay mi sax ñëw nañ ko fa yokk sa ndax ñun licence bi licence bi ci ñun rek mooy li nga xam ne dafa aju ci penc mi penc mi nag bu ñu ko waxee mooy lépp loo xam ni dafa ne màgg jàkkaarloog jumaa ji su xasee gën a àngale jëm ci mbedd nag ñun loolu suñu nekkul ci waaye ñoom gis nañ sax ñoom dañoo jël sax lu bëri ci loolu ba gën a sori ngir sécurité gën a bari ci ñii ñëw ndax gis nga fi ne teewul li def la teewul gis nga li mu bëri ca gis nga bu njëkk ni ko ni gën a occupé waaye ñun dafa mel ne ñoo far wàcc dañoo fal place bi ne ko ca tool leen fa yëkkati ñoom faruñ faruñ ngir safar ëpp lu ëpp def lu ëpp li naan def ñun ndax ñun picc la naan ñëpp ñu boole koon nag te ay nit ñoo xam tam dañoo pointe nag ci angle yëpp bokkut ak groupe yoo xam ñooy wër di sirwaaye ngir ay rëcc yi nga xam ne fa daam loolu bokk na ci liñ ci dimbale waaye loolu xam ni ko waxee woon nag di góorgóorlu rek ci jiima labiré ñi nga xam fàttali leen dal gi dal gi woon ci barab bi ñu ñëwee rek waaye nag fàttali fàttali wu tegginu ndax xam nañu ne barab bi ñu fi ñëw ñëpp dañoo ñëw ngir rooti ca ku yoroon nag su sañoon am lu yóbbaale kon xëy na ñooñu ku leen laabire da nga da mën a jubóog ñoom mën nañu ay ay ay ndaw itam yoo xam ne dañu fi nekk rek ngir di fàttali loolu rek ba wax dëgg lu néew daa jox sax cent pour cent waaye wax dëgg lu bëri itam. wàññi ku ne ci koo xam ne li ñuy wax xam nga ko waaw góor ñi ñooy saytu góor ñi jigéen ñi saytu jigéen ñi ndax bu dee ci diggante ba dem gisee ci sàppe yëpp yi nga xam ne moo jaar ba ca mbedd ma fu ci ne daf fekk day wax na ko ma ñaan def police nationale ko defee ngir saytu raayo yi ba ñu agsi ba ñu dugg ci barab bi mën a ci jàmm noonu la ko jigéen ñi dafay tam ñoo def wut ay jigéen tam ñuy fitoo jigéen ñi yooyu nag ñi ngi ko def ci ñoom ñëpp nag li tax ñu ma leen am mu xam xidma da daayira boo xam ne ñoom dafa gëm leen fi mu nekk lépp ñëpp mu ubbi ko ànd koog mboolu tamit suñu tuwaay yëpp ànd ak tam yeneen de ànd ak tam yeneen mbooloo yoo xam ne ñu leen tam di leen jàppale si ngir yëf yi gën a te ko ci yoon moo xam ne ubbil ñëpp tam ànd ko ñu waaye tam nag yooyu yëpp nag da leen a da noos def ak ñoom ay jotaay yu bari yu wuute bu ci def nañ benn bu mag a mag boo xam ne ñu ko defee CICES mbooloo bu bari ci ñi ñu liggéeyloo teewe ko ñu wax leen bu ñëwee ni ñu fiy liggéey ci barab bi ndax ñoom yi nga xam ne ñooy wax ni ni ñu war a doxe kon ñoom war nañ fekk ñu waajal leen ma noppi ba moo tax moom moo tax ñoom ñëpp ñu bool leen ci benn jotaay tàggat leen ci li ñu doxe ci liggéey bi ngir liggéey mën a mucc mën a mucc ayib wax na wax ma moom kenn ku ne xam na ni lépp lu def lu ne ak nose la ciy jiitu nosu mu nos nag moo ko may lii nga wax ni muy ndax li gën a jëfe ci li gën a jëfe ci ab liggéey def naa bokk na ci muy dajale ay mbooloo yu bokk fuñ xëy bokk fuñ gontoo rawat dama laa jëlee sax ndax da nga am mbooloo képp doo xam ne benn mbooloo doon da wax ne juboo seen bis leen të waaye ma xëy ma sax ñi nga xam ne sax ay mbooloo amoon jafe-jafe sax bu ñëwee fii dañ fa seen mbooloo yi jafe-jafe dañ fa la far ànd ñoom ñëpp ci liggéey bi boobu su jógee sax seen liggéeyante day gën a rafetaat gën a taxaat xam naa kon li ñu tàggatoo rek kon mooy soññ rek mbokk bi yëpp rek ci ñu bàyyi xel barab bi rek di sant tam tam mbokk taalibe bi liggéey bi yëpp tam nag ndax tam ñu tam ñu jàmbaar lañ ñu bëgg lu baax lañ boo fi ñëwee doo xam kenn ak kenn ñu ko ay bokk ak ndaw ak ñu seq ay ay ay ay ay ndaw yoo xam ni ndaw yu Pastef lañ yoo xam ne suñu ci dañ ko bàyyi bu dee ñi dëkk ñu fi dëkkut ñoom ñëpp kenn ñu fi dëkk mett na ci ñoom ndax ay gën lañ seen kër ñu fi dëkkut tam mett na ci ñoom ndax ñoom itam ànd fi bëggoon siyaare si wala seen mbokk yi seet waaye yëpp dañ koo bàyyi ànd nañ ñoom nekk ci liggéey bi suba ngoon bu dee bëccëg amul benn heure ndax ku yendoo liggéey ba ngoon dafa dal la ngeetal doo tal la neen ku faa liggéey ba xëy itam doo tal la neen itam loolu dallu ba kon daal du fi xaj kon tam amee la ak cant bu baax baax waaye ñu ñaan yàlla mu fayal ñëpp ak sëriñ bi